nawloo sa nawle waaw da ngay nawloo sa nawle wallaay ndeysaan waaw da sa xam naa ni mama Adama Serigne sëpp moom la ñuy coow waaye xam naa ni am nga ci loo xamante ni moom euh, xam naa ca sa kër yi jógee ca ca borom yor waaye la war a doon ndax loolo fi mu toll ni gars yi ma gis nii nii nii ak maanaam lii nga xamante ni tam mooy xeetu perte blanche te muy dal suñu mbokku soxna yi tamit ma gis ni da nga ko maîtriser te macha allah am nga ci yu doy waar yoo xamante ni te loolu lépp bu ñu ko seetee est-ce que yooyu bokkul ci lu mën a tere nit jigéen mu am doom wala mu jël ëmb wala yu mel noonu. waa Talla perte blanche baaxul ci jigéen. Mhm. dina la indil biir buy métti naq buy métti perte blanche baaxul. Mhm. day dem bay xeeñ. Mhm. day dem ba indi la infection. effectivement. perte blanche koo gis muy génne perte blanche. bu bëri am na infection. allah kulli moo tax jigéen ñi war a faj loolu. Mhm. te man une semaine laa koy faj nga tàggoog moom. c'est-à-dire bi li neex ci moom fi ne dala naan finis quoi. ku ñeme dañ laa dee. mais sama caméraman bi moytul mu daaleel caméra bi fi mu toll nii ko ci ku ñeme dañ laa dee. Mm. ku dañ laa dee. Mhm. dama koy faj. ndax am ñetti façon hémorroïde moo am. gars yi naan ñaar. ñetti façon. <laughs> gars yi ñaar la ñuy wax ba léegi de ñaar ñaar daal la ñuy wax. bi feeñ ak bi feeñul daal la ñuy wax ah. bi génn ak bi génnul bi génnul. ndekete am na ba ko ñetteel. ñetti façon la. tey ñu dégg dëgg. <laughs> ñetti façon hémorroïde moo am. dañ naan bi feeñ. Mhm. ak bi feeñul. Mhm. ak bi nga xam ne day naaj. bi mat. Hmm, boobu dafa mat sëkk. dafa mat day toj. bu tojee nag da ngay xelli deret. Mhm. booy dem toilette da ngay xelli deret te deret jooju boo nee du arrêté da ngay gis mu benn saw di génn boobu mat na da ko war a faj te loolu boo ko fajul mën na la indi ëllëg problème parce que kon boobu mooy bi lay teree dox di la teree toog di la teree def yu bari voilà mm-hmm. te ñu bëri am na ñoo xam ne suñu mbokk jigéen ñi ñu ngi koy jëlee ci njurum doom ok ndax puus bu metti day génnee ginnaaw mm-hmm. que suñu mbokk jigéen ñi nekk ci hôpital yi mhm. nañuy dimbale jigéen ñi ci puus bu metti dañ lay puusloo di la puusloo ba nga teppi sa bopp di la puusloo ba sa ginnaaw génn oh. nga koy dugal ak sa baaraam hmm. boo ko traitewul mu indi la problème mooy hémorroïde mhm. am na ñoo xam ne seere moo leen koy def ñu naan am na ñoo xam ne toogaay bu yàgg moo koy def mhm. moo tax liggéey këw ñi ngay gis ñuy liggéey di toog ñu bëri hmm. dañuy am hémorroïde moo tax dañ koy war di faj hmm. daf lay jeexloo ndax dalay ngacc hmm. dalay ngacc di la ñuy saan ñi nga xam ne day génnee dara dalay da leen di animé loo eh. leen di animé moo tax man bu ma lay fajal hémorroïde dama lay jox loo xam ne day yokk sa deret dama lay jox loo xam ne day yokk sa deret non mère man dama gis sax am na yenn xeeti jàngoro yoo xam ne boo koy faj fajal nit ki mhm. faaw nga joxaale ko garabu ndoxum siti man loolu moom bokkoon na ci li ma bëggoon a laaj tey waaw pourquoi nga jiital garabu ndoxum siti boobu euh, ndax gis nga képp koo xam ne yaa ngi dund ci kaw suuf am nga ndoxum siti dégg naa ko ko amul gaana nga de waaw ko ko amul gaana ndoxum siti ak gaana dañuy xeex hmm. ñaari feebar yooyu ñoo nekk ci doomu aadama dañuy xeex bu gaana gi gañee da ngay gaana bu ndoxum siti mi bu gaana gi gañewul ndoxum siti ngay am ok dafa nekk bu bon ak bu bon la mm-hmm. kure bët tam dafa am ak kuli ak kuli <laughs> kay mag ñi laa <laughs> ilaaha illallaah te loolu yëpp ci suñu gàncax gi rek la mm-hmm. mag ñi xamuñu woon pharmaciste bi yaay ci gàncax gi rek lañ koy fajoo man maa ngi seetlu bi ma nekkee xale su ma daan dagg mm-hmm. sama yaay daf ma naan demal ci tabanaani gi nga dagg ma dagg ci tabanaani gi bu ma ko ci toqal njoonjooy mu weex mi day daal di fermé wu tabanaani ay mbante maare tabanaani mooy li nga xam ne boo ko ci defee day kole dafa mel ne dafa am kol ndox mi dafa mel ne lu am kol comme awa mel waa daakaande boo ko ci def bu bët satee mu kole loolu noonu dañ ciy faj góomu robaale <laughs> gaa yi buñ piraat gars yi moom ne leen buñ pirate parce que pirate yi dafa bari ci réew mi gis nga loolu noonu boo ko amee nga boole koog yaxu nit góomu rabaale laa lay wax de mm-hmm. nga boole kook yaxu nit ak tayitu indee nga mm-hmm. taye ko sunguf sunguf mooy sunguf bi ngay tooyal taf ci tooyal di ko taye ci ginnaaw inde bi mm-hmm. moom ngay boole dëbb ko ba mu nooy nepp boo amul yaxu nit nga tibb ci suufu bàmmeel bi boole ko moom di ko def ci góomu robaale bi doo ko ci def ay weer te wéru Cheikh Mbaye te góomu robaale bëri na ñu fi rey de bari na ñu mu rey bu la bàyyee rek dangaa dugg bi suuf bu wéree rek dangaa dugg biir suuf te bëggul sobe heure boo hmm. amee sobe mu wut nii képp ku am góomu rabaale bu amee sobe day wut nii waat saalum saalum naa damaa nekk bawal bawal nekk saalum saalum juddoo saalum yaroo saalum sama baay di bawal bawal la kubar juddoo ndula <laughs> ndula genn ndula ndeysaan nëbbatuuma de kuy nëbbatu du ne maa ngi man sëñ Sam Ndula lañ ma tuddee man <laughs> sama baay bi ma jur du la la juddoo. kooku boroom xam-xam la. ah yow tam. <laughs> loolu du la rek. <laughs> gàncax la ñuy gàncax li ci ëpp lépp gàncax la ñuy liggéeyee. wallaay lazim. tey am na garab goo xam ne te bu ma bëggee ñaar jubóole ñaari nit. ba yomal xiyaam dootuñu tàggoo hmm. soo ma ko joxee ci àll bi laay dem gas ba dagg reen ba boole koog la ma neex la nga xam ne moom lay laaj ma hmm. boole koog moom kole ko te bu ñu kolantee dañuy dañuy kole ci biir maanaam waru kolo kole ñàpp rek ñàpp la yow nag mère indi nga problème ndax bii moom di nga ko kole bii may lij bii moom di nga ko kole bii moom di nga ko kole kole ñàpp la su ma leen bëggee tàggale <laughs> ci garab googu laay laay gas ca reen ya tàggale leen dootu leen jàkkaarloo dañ nañuy jàkkaarloo rek waaye koo leen ñàpp rek ñoo xam ne dinañ la teg fitna yoo xam ne da ngay bëgg rek tàqali kookoo na ma rey koo leen rek <laughs> moo tax xam-xam dafa sew oh. nit a ngi dem xam nga damay génn yenn saa yi ni ma maa dama géey ak am xam-xam waaye xool ni mu simple waaw lu ma doon du ma nit non loolu moom bokkoon na question bi waroon tëj bi parce que <laughs> loolu bokk bi dama koy wax dama koy wax dama koy wax dijee bi ñuy dugg ci biir kër ma ne ko tey nga gis ko nit ku simple da yenn saa damay màgget yenn saay ma nekk xale lu ma neex mel yow xam nga ci dara. yow xanaa pare nga. man nu ma neex mel man nu ma neex mel damay soppeeku comme kakata comme jaam ñàngoo damay soppeeku. la su ma neexee léegi ki koy jéem ak ki ko mën su ma neexoon guddi ma tol sol sama baa romb la fii sol samay baral romb la fii.